Bismillahirrahmanirrahim Assalamu rahim Bok Assalamu Assalamu Assalamu alaikum les membres de la fondation Kerasoul Rassoul alayhi salam, imami Assalamu Imami, imam Ustazi Assalamu Assalamu représentants et représentantes de la fondation Kerasoul Rassoul alayhi salam. mbooloo mi membre fondation Karasoul yi nekk ci 400 groupe whatsapp yi fondation Karasoul am fii ci Sénégal ci Afrique ak bitim réew maa ngi nuyu 250 000 membres yi nga xamee ni macha allah fondation Karasoul moom la am Sénégal ci région yépp macha allah ci Afrique ak bitim réew man Cheikh Mohamed Abdallah Thiam soppe na bi président de la fondation Kër Rasoul, alayhi salatu wassalam salam. Andak sama papa imam Abdoulaye Mbaye Rasoul Imam fondation Kër Rasoul, ñëw waxtaan ak membre ak représentant waale bi ngi ak di waxtaan ak suñu mbokk chrétiens yi di waxtaan ak képp ki nga xamee ni macha allah yaa ngi dëkk Sénégal ak bitim réew. imam fondation Karasoul dafa am événement bi nga xamee ni mi ngi ñëw événement bi mooy lan élection présidentielle ñu wala tabb ki nga xamee ni moo wala jiite suñu réew ñu bëgg nag bii paa. da fa bokul ak yene election vous bo xolé nombre candidat Il y a 19 19 c'est da fa tek tam la ndax bo démé ci karim sunu borom mi ngi wax aucun chiffre n'est au-delà de 19 manam a ben chiffre bu de 19 aucun chiffre n'est au-delà de 19 boo xoolee ponk lislaam yi juróom la mhm. bi ci jiitu mooy nangu ne boroom bi laa ilaha illa allah muhammad rasulillah alayhi salaatu wasalaam mooy seede yi nga xamee ni mhm. ku ko wax jullit nga mhm. booy dugg ci lislaam sax seede yooyu ngay wax benn buur moo am mooy sunu boroom kan la yónni ci jaami yonent yi bari waale kan moo mujjee ñëw indi lislaam mooy seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam kon booy dugg ci diine bi dangay wax laa ilaha illa allah sayyidina wa mawlana muhammad rasulillahi alayhi salaatu wassalaam kon ci lislaam yi ñu jàll ci weeru koor moom la nekk nii yal yàlla barkeel suñu koor te nangu ko te fay ñu ñu ñëpp lu weesu suñu njot mm. pontu lislaam yi mooy dem aji màkk boo ko mënee génne asaka boo ko mënee ak eh, ba imam eh, Mahammed ak julli waaw foofu lañ doon jëm nag julli moo tax aucun chiffre n'est au-delà de dix-neuf mm-hmm. yéeme mm-hmm. ponk l'islam juróom la seede mm-hmm. ne yàlla kenn la yonent bi alayhi salaatu wassalaam la yebal ci ñun génne asaka boo ko mënee aj màkka boo ko mënee woo woo weeru koor bu la ko sa santé maye ak julli wàlla déglu aucun chiffre n'est au-delà de dix-neuf xoolal boo jëlee julli fajar suba ñaari rakk la nga jël fajar ñaar boo ko boolee muy ñeent tisbaar ñeent rakk boo ko boolee ak ñeent yi muy huit nga jël tàkkusaan ñeent boo ko boolee ak huit yi muy douze nga jël timis muy ñett rakk nga boole ko ak douze muy quinze nga jël gée muy ñeent rakk nga boole ko ak quinze muy dix-neuf kon ni ngay jàngatee

vingt quatre fois ndax ñi ngi deux vingt quatre nga def vingt quatre fois salaatu ala nabi maanaam alayhi salaatu wa salaam ba muy vingt quatre fois wala bu la neexee allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ba muy vingt quatre fois bu la neexee jëleel salaatul fatiha jëleel salaatu bu la neex nga def ko vingt quatre fois ëf ko ci nga ni sunu boroom dañ ñaan élection yii nga tànnal ñu njiit bi gën ci Sénégal njiit bi nga xamee ni bu ñëwee incha allah bi Sénégal ñépp danañ ci gis seen bopp Sénégal dana am naataange xale yi ndaw ñi am liggéey am teraanga mag ñi di mën a faju saa yu ñu bëggee faju jigéen ñi soxna yi am teraanga am liggéey baykat yi seen liggéey dox industriel yi seen liggéey dox euh, éducation bi dox économie bi dox pétrole bi ak gaz bi ñëw ñu am si lu weesu suñu njox maanaam ku gàttal ko nga tànn ñu njiit li nga xamee ne bu ñëwee macha allah day indi teraanga xéwal jàmm ak sutura waaw bu mu yem rek ci tànn ñu njiit wala ñu ngi koy ñaan mu bunge ko mu accompagne ko ndax suñu borom mën na la tabb tabb la seetaan la su boobaa doo dem ndax suñu borom kàttanam ak dooleem kon ñu ngi ñaan suñu borom mu tànn njiit bi nga xamee ni bu ko tabbee ba pare nag njiit bi nga xamee ni lépp day ne ci moom ci ambition yéene teraanga ak volonté ak engagement total waale buñ ci yam ci ñaan bi ni ñaan ci carte électeur ci 19 bismillahi rahmaani rahim ak 24 salatu ala nabi yi nga xamee ni moom la ni ëf ci carte électeur bi ci bisu élection bi wala bu la neexee def ko veille élection bi dañ koy ñaanit njiit boobu mu ñu tànnal mu bunge ko mu accompagner ko mu éppale ko mu soutenir ko ba yéenee njiit boobu suñu borom def ci leeru Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam def ci doole yonent bi alayhi salaatu wasalaam def ci xarañte yonent bi alayhi salaatu wasalaam def ci kattanu yonent bi alayhi salaatu def ci yërmandeem def ci taxawaayam ndax suñu borom bu la tabbee seetaan la dara du baax wala bu la tabbee ba pare bunge la accompagner la soutenir la incha allah rabbi su boobaa teraanga dina ñëw xéwal dina ñëw na sunu borom tànnal waa Sénégal ndax moom du juum te ku dul juum noo def noonu la wala it ku mu bunge doo weet ku mu jàppale nga mën ku mu kàttanal nga am doole am kàttan am pexe am solution kon daal maa ngi ñaan sénégalais yépp fii ci Sénégal ak biti réew ñu jël mbir mi dénk ko sunu borom mu tànnal ñu ki gën te it bu ko tànnee mu gunge ko jusqu'à la réussite totale ci daraje Muhammad rasulillahi alayhi salaatu wassalaam mm-hmm. imam Abdoulaye Mbaye mm-hmm. fondation Keur Rassoul ñu ngi lay mm-hmm. bismillah ma bàyyi la nga sànni ci ay kàddu bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh fondation ka Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci turu président fondation ka Rasoul Cheikh abdullah ci am sopp nabi ci taxawaayam ak njàmbaaram ak liggéeyam waaye nag ci gàttal cheikh bi indi nga solution cheikh bi indi nga solution solution bi mooy mooy borom bi nga tànnaloo borom bi tànnal ñu tànnal ñu ndax ndax it Euh, ab président doonul lu tuuti euh, nga wax nag ne gannaaw ñu ngi song nag élection yi nga ne borom bi tànnal ñu foofu nag nga indee solution bi ci des bi nga xam ne nag moom a gën a daaneel bi nga ne tànnal ñu te gunge ko nga gunge ko laa ilaha illallah loolu loolu xikma la te it ilham la bu la yàlla jox tànn tànnal ñu te gunge ko ndax bu ko gunge rek liñ bëgg lépp danañ ko am te li dëxuñu ci biir yàlla gunge la mooy leneen ak xeeti teranga yi dul jeex yoo xam ne day dugg si te mi ngi ànd ak gunge gi yàlla gunge kenn ñu tànnal su ko defee nag kon loolu lu am solo la foofu nag la sa maam Seydi Hadj malik Abdo radiallahu taala anhu ci téerim bu ñu wax zajarul qulub dafa wax ne fa qayir wala taxtar fa kayfa ixtiyaaruna fa in wa inna muxabaati l umuri taxibu fa qayir na nga tànnaloo yàlla yow yàlla nga tànnloo eh, tànnaloo googu nag nga xam ne nag moom ngay tànnloo yàlla la Seydi Hadji Malick Abdou wax loolu eh, lu ko waral nag mooy mun a fa mu muqabati lu moo di taxibu ndax mbir yi dafa la fàddu gannaaw mbir yi dafa la fàddu nekkul ci sa loxo kooku il faut nga tànnaloo ki nga xam ne lépp a ngi ci kanam cheikh bi nag il faut nga àddu te sa àddu bi dafa dal suñu xel ndax koo xam ne jiite nga ñeenti téeméeri groupe WhatsApp muy ñaata junni ci membre seex bi. deux cent cinquante mille deux cent cinquante mille membres. macha allah fa tabarakallahu kon te ba noppi nañu di la déglu ci biir réew mi ak ci bitim réew fu nekk ci àdduna bi rek fondation Keur Rassoul ma nga fa te ñoom sa kàddu la ñuy déglu kon nag lu mel nii te am solo bu ma lee il faut nga àddu mais beneen bi nga xam ne moom ma gën a tollee te daana nag ndigal bi nga joxe ci képp koo xam ne am nga carte électeur te war a dem war a dem wate ji. nga jàng ci bismillahi rahmani rahim. 19 19 fukki yoon ak juróom-ñeent. jàng ci salaatu ala nabi 24 ndax ñu ngi ci te nga 2024. loolu xikmatul ilaahiya la kon nag su ko defee mooy waral lan bu ñu yàlla tànnalee day sedd guy day sell day baax day tedd kon nag adduna bàngoog adduna bi eh, liggéey bàngoog santaane bàngoog dégg nga ndigal bàngoog yàlla ñu yàlla dimbale. بأنه ولي ذلك والقادر عليه وما ذلك على الله بعزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 njiit bi gën ci réew mi te boo ko tànnee nga bunge ko nga jàppale ko nga kàttanal ko ba Sénégal gii nga xamee ni ñun ñépp ñoo ko bokk jëm ci kanam am ndam am teraanga ci dara ji Muhammad Rasulillah alayhi salaatu wassalaam jërëjëf maa ngi sant ñépp di gërëm ñépp yàlla élection yi ñëw ci jàmm jal ci jàmm ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam jërëjëf waa fondation Kër Rasoul alayhi salaatu wassalaam maa ngi leen di nuyu di leen ziar